lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci kuje gi ñu bokk ci parti politique ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñoo ko moom ñoo ko bokk te mënuñu ko seddoo muy Sénégal di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection bi muy ñi yore woon les leaders nu ma ko waxee sànq parti politique yëpp. ñu bokk ci coalition Diomaye président di di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñi yore communication bi wala ñu yore organisation bi ba ñu def campagne bu mucc ayib bu fépp fu ñu dem fekk fa ay Sénégalais ñu teer suñuy waxtu bu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu ñu egg fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière à un homme. Je pense que j'ai pas besoin de le citer pour... ko ci ndokkeel ci gis-gisam ci détachement am ci désintéressement am ci xelam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba Sénégal yi amoon yéene jëmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar gu ma jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax na man kese bu dul man du doon keneen ci gannaaw kon loolu du mën a am waaye yemul ci loolu yemul ci loolu parce que dafa takk ndigam takk ay daalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg subaak ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci la waral résultat bi kon mënuñu ko bañ a loxo. te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene gi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal mu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu ñu may cër bàyyee ko xel gën ko fonk ci adduna ak euh, ñu dégg ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu wóor la combat yi nga xamante ne daan nañ ko xeex bu doon combat yoo xamante ne combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et Thank you.